Dank u. Dank u. kii moom waxoon naa la kii moom. Allahu akbar. mooy sa problème ak kii. mooy sa problème eh wuy ma ko bàyyi. di ko bàyyi. dinaa ko bàyyi. di ko bàyyi. dinaa ko bàyyi. wuyu ma. ah dama doon nga jàpp ko. dinaa ko bàyyi. lu taxoon nga jàpp ko. waxal. hey. hey. bàyyi ko mu dugg hey. Ah. Oh.